jërëjëf mbokk yi ñu seetaan ci wasaare lamb nuyooti nañ leen am kontaan ak mbégte comme ni ñu leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci parcelle Assainies unité 4 ki ñu fi woo sampion euh, la ci làmb muy booy Faye euh, mooy ngénte doomam macha allah ñu ñëw fekk fi champion Parcelles yëpp dajaloo fi moo lay wan nii ñu bokk teen ñooy laxasooy goj mbooloo mi ndeke li muy rëy rëy ndeke champion yi lu ñuy bëree bëree amante nañ di di demalante ak dikkalante ki ma taxawal na mooy musaa Balla Gaye Moussa kenn du ko présenté sama waa ji ci loone jil bu réew siyaar <laughs> naa leen waa wasaare yëpp di bëgg ñëpp waa di ñaan Sénégal jàmm yàgg fi baag Sëñ Tuubaa sant yàlla bu baax nag julli si Yonent bi sant suñu ñaari waajur waa di sant waa parcelle bi yëpp waa tey nag dañoo ñëw taxaw suñu bisu copain booy fay moom kenn la si ñun affaire du bokk écrit kese quoi wala ay affaire de làmb kese yaakaar naa nit moom su ngeen nekkee rek lépp lu mu taxaw boo ko yëgee da ngaa war a ñëw taxaw quoi tey nag yàlla def muy tudd taawam bu jigéen bi wax ñu ko ñëw teewe ko. li mbër yi gannaaw làmb ay kilifa lañ ay responsable lañ parce boo demee ba gis yenn xale yi nga xamante ni bu njëkk dama ci euh, mbër yi sax faral di nekk ci takk soxna bay ngénteeg yu mel noonu mais xale yi dafa mel ni ñu ngi wane ni ay kilifa lañ. waaw loolu mooy yoon parce que nit tamit affaire bi du làmb kese nit ku nekk da ngaa war a sauver sa vie te yaakaar naa takk soxna dasee bokk. defar fondé famille loolu rek dèjà wërsëg la ci ci lépp. kon waroo nekk daal làmb daal di la yàqal ay wax waxu soxna ak yooyu quoi pour man wax dëgg yàlla war nga xam boo gisee ku baax koo xam ne bëgg nga ko mu bëgg la yàlla boole leen nga fas ko te yàlla tax ngeen ànd parce que fii waaw yàlla moo yoon ñeeku affaire de kilifa moom yow yaa yaa koy def sa bopp rek doon ko waaye boo nungul nekk kilifa doo ko mas a doon waaw noonu la